mbokk yi salaamaaleykum euh, yéen ñuy faral di seetaan seen site internet bu mag bi Allo Dakar TV international tey nag euh, ñu ngi leen ñëwal fii nga xamante ni si mooy Sacré Cœur 3 ñu fi dale ñu fi dajeek euh, koo xam ni ci li ñuy waxtaane kilifa la ci et puis kenn la ci ci réew mi muy monsieur Ndofène Fall ancien international jaraaf ancien capitaine bu jaraaf moom tey la ñuy dalal pour waxtaan ak moom li nga xam ne mooy en actualité ci li nga xam ne ci wàllu sport bi muy ballon door bi nga xam ni ren ku ne xam ne ni mu demee ñu waxtaan ak moom ak li nga xam ne mooy sport bi nga xam ni mooy football fii ci réew mi monsieur Fall ñu ngi euh, maa ngi suñu mbokk yi ñuy seetaan yëpp euh, te ñaan yàlla buñ ci jógee euh, li ñu waxtaanee yëpp di njëriñ. Mhm. monsieur Ndofène balaa ñu dugg ci waxtaan bi dañoo bëggoon xam kan mooy Ndofène Fall ak ñu ko boole <laughs> waaw waaw ma ñun xam nga d'abord da nga daan dem jàngi école euh, bi ñuy joué euh, école régionale Bambey jóge fa ma dem lycée Charles de Gaulle boo seetee jamono yooyu Charles de Gaulle bu doon tase ak lycée Faidherbe wala lycée de la Fosse day mel ni Linguère mooy tase ak barak bu bu bu Ndar euh, ma jóge fa joué barak bu Ndar dem dem Bambey bi ma demee Bambey ñu am fa benn équipe bu tudd l'Amassas de Bambey ñu ñëw fii semaine de la jeunesse ci la ma euh, Mawade Wade maa ngi koy yi euh, ñëpp di ko ñaanal yàlla euh, yóbbu ko ci àddina yi gën a sori ci la ma gis ma nekk deuxième division mu sélectionné ma indi ma équipe nationale ba at ma jeexee nag mu ni ma li doon gën mooy nga fexe ba dem ci ci équipe yu mag yi ngir boo fa bëggee nekk international dafa laaj ngay jongante te bu fekkente ne booba deuxième division daawuñu football lu bëri mu ne loolu day am lu muy wàññi ci yow ma ñëw jaraaf bu Dakar euh, bi may ñëwit dañ ma ne woon boo fa demee doo football waaye ma ñëwee maa fa mujj nekk capitaine maa ngi fàttaliku bi ñu demee qualifié euh, Zaïre euh, Sénégal moo doon joué ji foofu ñu dem fa benn qualifi benn tëbaski la bi ñu qualifié Abdou Diouf moo ñu tal bi ñu président moo ko wax ne ko na nañu recevoir mu recevoir ñu li ñuy li ñuy dal li dal équipe bi léegi rek moo ñu dal

waaye booba dañ ma ne euh, comme yow da ngaa gaañu woon kaay ñu waajal la pour nga nekk dirigeant. Euh, loolu it maa ngi leen ciy sant ñoom ñëpp di ñaan yàlla it Lamine Diack fa mu nekk yàlla jëlee ko fa euh, ba mu dellu si ci njabootam bi nga xam ne ñun ñëpp la parce que Lamine njabootu Lamine Diack dafa yaatu. ma nekk fa dirigeant année boobu it ñu gagné championnat bi ma fa jógee ma dem Guinée liggéey ma fa yóbbu woon bi ma ñu ñibbisee waate ñu joxaat ma équipe bi. 89 gagnons la coupe du Sénégal 90 nous gagnons la coupe du 2009 gagnons gagné coupe du Sénégal. 2008 gagnons la coupe du Sénégal 2009 gagnons gagné coupe, 2010 gagnons le championnat bi coupe d'Afrique bi la coupe d'Afrique Joliba gagné Force Authority d'accord tey nag xam naa li tax ñi koy dalal mooy ku ne xam na ni euh, li nga xam ne en moo nekk en actualité ci wàllu sport surtout football mooy xew-xew bi nga xam ne moo xew euh, bërki démba euh, muy affaire ballon d'or xool ni tey ballon d'or bi Afrique yëpp ba ci dëkku naar yi ah même en Europe nit ñëpp yaakaaroon nañ ni Sadio Mané war na koo mën a jël mais yu dem ba ci biir je ne pas parce que bari na ñu wax ni.

ñoo woteel Sadio Mané faraluñu ko ngir dañ ko faral noonu dañ koo faral te dafa am fu ñu ko teg parce que Sadio mooy ko meilleur buteur te du dóor penalty Sadio moo gagné moo gagné euh, champion champion d'Europe bi moo gagné coupe interclub kon mën nañoo euh, euh, super coupe d'Europe mën nañoo tànn ni kon ren Sadio amoon na argument yu ko mën a may moom mu gagné mu gañee ballon d'or li may reproché africain yi mooy bu ñu gañee ba pare ñun dañuy dem ne Euh, tubaab bi lañ koy teg fekk ñun ñoo ko war dañu war a seet ci suñu biir ni ñuy comporté woo ndax noonu la ñu war a comporté woo mais bu fekkente ne euh, Liverpool dafa indi d'abord ñeenti candidat indi na Van indi na indi na Salah indi na euh, Sadio indi gardien de but ñoom ñeent déjà bu fekkee vote yi dafa tas dafa am loo xam ne dafa leen di wàññi benn ñaar africain yi woteeluñ ko boo seetee Mauritanie gii nga xam ni pratiquement benn réew lañu Mauritanie woteelul Sadio Mané kon nag war nañoo ta seetaat ci suñu biir suñu comportement ñun africains yi par rapport à beneen africain buy xëccoo bu ñu seetee ci suñu biir ba pare parce que bu fekkonte ne 54 pays 12 la ñu wax ni moo ko woteel 12 boo seetee 12 ci ci 54 des na 42 42 yooyu yëpp bu ñu ko woteeloon kon Sadio Mané day gagné kon li li ñuy li ñuy reproché ñeneen ñi nañ ko seet ci suñu biir benn mais boo déggee ku mel ni wan wa Klopp nga xam ni mooy seen entraîneur ñoom ñëpp xam yëf yi ni muy doxee euh, dafa mel ni leeroon na ko ni euh, bu ñu bu ñu bu ñu xaymaa ba pare Sadio du ko nekk mu bañ nag xëy na mu am métti trop moo tax mu teel ku ko yëgal ne ko génnal sa xel ci ballon d'or bi ngir leeroon na ko nii waa Europe dañuy woteel Van Dijk waa Amérique latine dañuy woteel Messi Messi waa Afrique woteel ko bu ko defee moom mu gagné Sadio Mané jëm jàpp naa ni fekk ñi ngi defee noonu euh, am na kenn ku ne li tax George Weah gagné woon jamono yooyu Ballon mooy africains yi daawuñu wote euh, africains yi dafa mel ni ñoom bëgguñu euh, seen seen ki nga xam ni dafa bokk ci ñoom li mu war a def ci boppam nag mooy mu gëm nii parce que boo seetee sponsor yi. ñi ngi commencé di génn fofu parce que euh, euh, euh, euh, Nike ñëw nañu seet ko pour waxtaan ak moom proposé nañu it ni sterling 100 millions de dollars 100 millions d'euros pour effectivement jël ko parce que li ñu def seen bopp mooy ñii ñi ngi jeexal muy muy muy muy Cristiano Ronaldo muy muy Messi ñoom ñëpp làq nañu seen seen 30 ans jëm kaw kon bu ñuy wax waxi avenir ci ñooñu lañ koy seete kon la ñu war a wax wax saajo mooy que euh, wax dëgg yàlla dëgg neex yàlla ñi ko woteel mooy ñi nga xam ne du ñuy africain fekk nag africain yi ñi ngi wotee noonu mën nañoo jàpp ni dootuñu am baloon d'or boo seetee euh, bu bu fekkee Liverpool dafa indi euh, ñeenti candidat day day day tax ba vote yi du dajaloo ci kenn xam nga bu fekkoon Van Dijk rek lañu am ñi nga xam ni dañoo woteel Messi wala ñu woteel Firmino wala ñu woteel Salah bu ñu dajaloo ci Van Dijk Van day gañe parce que juróom benn baat la ko Messi rawe bu fekkonte ne ñoom ñëpp dañoo dajaloo ci euh, Sadio Mané Sadio Mané day gagné boo jëlee africain itam bu fekkee ñii dañoo woteel sa Salah ñii woteel Sadio ñii woteel Mahrez euh, bu ñu defee noonu day tax ba daf ñuy néewal doole kon nañu jàpp ni bu ñu ko wékk tubaab yi parce que ñun dafa mel ni lu am rek. foto keneen kala du ñu seet li nga xam ni ñun waroon nañ ko indil suñu bopp parce que boo africains yi defoon benn dank dañuy gañe boo seetee bu ñuy dem tam di wut euh, euh, euh, préparation ñu naan dañuy dañuy xëccoo pour kuy organiser coupe coupe du monde wala ku organiser Jeux olympiques yu demee noonu africains yi dañuy tas te fekk ñi ngi tas du ñu du ñu mukk gagné titre majeur. léegi jox nañ ko Messi Sadio moo nekk quatrième. lan nga am loo xam ne moom ngay moom ngay digal Sadio. waaw li may digal Sadio mooy li ko Klopp wax xam nga boo boo bokkee ci dara da nga cay am xam-xam boo xam ni da nga ko cay da nga ko cay jëlee ci biir jëfin bi xam nga ki nga xam ni day dund yëf yi bokk la ki nga xam ni da koo sori di ko di ko jàngat rek ci ay këyit Klopp leeroon na ko ni euh, euh, nii vote yi di demee parce que journaliste yi ñooy wote jàpp naa ni journaliste Amérique latine mënoo fexe ba mantale ba moom muy woteel Sadio kon mu teel koo yëgal ne ko

waajal entraînement te am na nag beneen taxawaay boo xam ni il faut mu boole ko ci xam nga léegi dama doon wax ni Naek ma ngay jëli Sterling ma ngay jëli Sadio maane parce que leer na ko ni fii bu fekkee dangay dangay jàpp ni ëllëg ñooña moo ñoo nar a nekk vedette yi waaye loolu dañ ko ci boole seetal Messi Messi ñëwoon na Sénégal lu muy def Sénégal sponsor am moo soxla Afrique. te booba Sénégal am na taxawaay boo xam ni ñëpp ñu ngi ciy bàyyi xel mu ñëw fii jàpp naa ni moom bu changé sponsor parce que loolu liggéeyu sponsor bi la day def sa gannaaw benn cellule marketing boo xam ni mooy def liggéey mooy def liggéey bi yow la mu la cay ñaan rek mooy na nga dem taxaw barab sàngam na nga dem taxaw barab sàngam xam nga li muy def Bambali ñun yëg nañ ko parce que ci la ñu bokk mais ña nga xam ni ña ngay jëflanteeg moom yëguñu ko parce que fu mel nii bi muy dem compétition ak subartin subartin xam nga waa gaañ na ko bu metti topp ko di ko gaañ gis nga noonu ñu koy def na jàpp ni dootuñu ko may euh, jàmm fii ba carrière yaram di jeex parce que nag muy Sadio muy Messi muy Cristiano Ronaldo koo ci bàyyi mu rey la foofa la war a toog ci place boobu. fi ñoom Messi toog ak ñoom Cristiano Ronaldo fa la war a toog buñ la buñ la gaañee nga xam ni waa ji loola la am amul beneen solution nga defar waat na dem entraîner ji waat continuer football te dégg naa euh, Seydi di ko wax ne ko su ma doon moom damay génn Liverpool. parce que xam nga euh, euh, loolu digal la waaye du tee jàpp naa ni li muy def Liverpool wane na wane na boppam ba nga xam ni leer na ni ci ñi gën ci ci àddina bi ca la bokk d'ailleurs ñi nga xam ni yëpp dañuy xënte. wut euh, euh, euh, footballeur bu xarañ Sadio la ñuy wax Neymar parce que ñeneen ñi xëy na mënuñu cee jot. ba ko ba ko ba ko Modric di gagné gëm naa ni marketing bi nekkoon ci kannaawam moo tax mu gañe ko waaye boo seetee fii ci plateau yi Sénégal gi sax amul kenn ku ci def plateau gëm naa ni saajo jamono yi mu ñëwee Afrique te nekkoon di di di di jongante pour am trophée bi laajoon nañu def baloon doon nag rek ci coupe bi. ci ballon d'or bi def ben plateau bo xamni ballon d'or rek lañ ci wax ah jakalat sunu taxaway wo ñu melni et puis nak état bi diko dox fédération bi diko dox parce que ku melni Mauritanie mënoon nañu fexé ba buñu ko doxé que journaliste Mauritanie buñu ñuy désigné mu ñew ci ñun gis nga ni ñuy doxé ONU nga xamni ne dañuy wut ay candidats non lañu wara doxé Ballon d'Or parce que Ballon d'Or yeufi ci xaan du rek prestation bi terrain mais li ci terrain bi ak li ko wër nañ prestation pousse Sadio Mané waaye ne indigné wu kon amna no xamni am euh, indi Sadio en dehors de de Drogba euh, en dehors de Georges euh, Meya Drogba mo fi Taylor Afrique du amati nit quatrième lol nak du lu ndaw te mom goné la te ñe bañi koy bañi avenir bi yaakaar avenir Sadio la na takkaat euh, lu mu daan def mu jëm koo yokk euh, te te comme sponsor sponsor bi autour de lui

bu génnee boobu témoignage ñun ñi nga xam ni ñëpp dañoo amoon yaakaar ni moom day gane day gagné euh, Sadio day gagné Ballon d'Or bi suñu xol war naa sedd suñu yaakaar gën a yàq. incha allah kon jërëjëf euh, euh, ki leen ko doon présenté mooy seen mooy seen mbokk Assane Gawlo Mboup allo Dakar TV international ñu leen di jox dig daje ci ak keneen koo xam ne xam-xama màcc na ci li nga xam ni moom la ñuy def jërëjëf monsieur Ndofène. jërëjëf.